Euh, alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa euh, mbokk yi di seetaan ahlul fayda tv euh, macha allah ñu ngi ndokkeel ñëpp di gërëm mboolem jullit fu ñu mënta nekk ci àddina bi rek di suivre ci waajtaayu gàmm gi ñu nekka ak oustaz Babacar macha allah muy borom xam-xam di alimul alam ñu bëgg mu waxtaanal ñu lenn rek ci waajtaayu gàmm ak dénkaan yi muy dénk taalibe yi ak mbëggeel ak maulana Cheikh Ibrahim ci yontu yàlla Muhammad ba weer wi doon jublu danga xam ni andi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 taala wa barakaatu di leen ndokkeel ci weeru gàmm gi nga xam ne moom la ñu dégmal muy bés bu màgg ci àddina ndax ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane si àddina bés boobu nag comme suñu référence Mawlaaya Cheikh al Islam daf ko fonkoon doon ko fuglu ni ngeen ko xamee yéen ñëpp jël weer wi def ko muy weeru boppam euh, di ko waajal ci dëkk ba di ko waajal ci jëmmam di ko waajal itam ci ay njabootam ndax màgg gu bés bi am ci moom ndax yàlla li mu bëgg ci ñun mooy gannaaw bu ñuy defaralee suuf si kenn sañul taxaw ne maa fi def suuf si mbaaral ñu asamaan si lu nit beew beew ñeme ñemewu la wax ne moo ñu def asamaan si mu defal ñi li ci nekk yëpp nag dénk ñi ne maintenance bi rek laa leen sant maintenance boobu nag pour mu am mu jox ñi ay règle yonent yi di ñu ko indil yonentu yi ni ngeen ko xamee ñu ngi ci bési gàmmu danañ leen wax lim beeg yonentu bu ci nekk sharia bi nga xam ne moom la indi woon borom xam-xam yi dem nañ ba ne mat nañ alfaka qadin vingt quatre mille ay yonentu am ñu ne sax mën na ko ëpp itim ndax al alquran daf ne am na ñu ñu leen tudd ci yonentu yi am ñu ñu leen tuddut kon ñiñ tuddut kenn xamul seen lim sax waaye ñooñu ñëpp ñu leen boolee. ulul azmi mina rusul ñoo ci gën ulul azmi mina rusul ñooy tànneef yi nga xam ne ci biir yónnent yi ñoo ci gën ñoom ñëpp nag bi ñu leen tànnee ñoom ulul azmi mina rusul yónnent bi sallallahu alayhi wa moo gën ñëpp guddi wala guddi yi nga xam ne moom lañu ñu ñoo jiitu woon guddi gi nga xam ne ci la juddoon Cheikh Ibrahim ne bésam la moom bésam la moom ci la wax ne hani an li ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalun bada li naazirina weer wii daal mu ne maa ci ciy ndokkeel ibrahim ndax weeram fenk na weeram fenk na laaxa hilaaluhu hilaalun bada li naazirina weer la woo xam ne nag bu feeree ñépp gis nañ taar bi ci nekk ndax ci la ñuy jàngataat dund yonent bi sallallahu alayhi wa Mawlaay Cheikh al Islam mi nga xam ne mooy sama soppe di seen soppe dafa waxoon doomam ja alxalifa Xaaji Abdoulaye Niass ne ko bu bés ba jotee na nga gàmmu ci barab sangam mel ni Xaaji Abdoulaye alxalifa dafa wekk gàmmu ca booba jamono ak expérience am digganteem ak gàmmu Cheikh Ibrahim résumé ko wax joo xam ne Seydi Ahmad Tijaani moo ko waxoon moo ne gàmmu duut qisasun tataxallaluha am amdaax mu ne dañuy géew di bàkk yonent bi di wax ay jaar-jaaram léeg-léeg ñu way noonu la ko Medina di defee jëlee ko ci jàngat boo xam ne Cheikh Ahmad Tidiane moo ko defoon Cheikh Ahmad Tidiane Cherif radiallahu taala anhu Mawlaaya Cheikh al Islam jottali ñu ko kon daal mbokk yi ñu ngi wax ne ñu ngi dégmal bés boo xam xalifa bi mu ngi koy fuuglu mi ngi koy sàkk ci mbooleem taalibe yi itam mi ngi leen ci woo di leen wax ne bésub yónnent bi la bésub cheikh Tijaani la bésu cheikh Ibrahim radiallahu taala mi nga xam ne mbootam yónnent bi moo rayaat ci moom sara sirruhu fi haykali wa ruwaayi la waxoon mbootum yónnent bi moo royaat ci suma jëmm ji man Cheikh Ibrahima loolu la waxoon waaye mbootum Madinatu Munawwara itam moo royaat ci dëkkam bi nga xam ne mooy Madina nag te Kaolack woo fitim ci weneen way la ko waxoon daf ne sara laha sirru madinati nabii xabasaha tan fii bila tarayubi na ngeen xam ne daal mbootam Madinatu Munawwara mi moo royaat ci suma Madina gi kon ku ne woon bu ma gisoon yonent bi defal ko nangam mbaa bu ma gisoon yonent bi sàkku ci moom nangam na nga xam ne boo daggee manding yi dem ca pencum Mawlaaya Cheikh al Islam ca Medina gële ca kawlax la ngay sàkku ci yonent bi soo ko sàkkoo foofu danga ci jot incha allah ndax kat démb rek kay tey fa lil waarisi maa lil mawruusi ki amee ndono gi kam dono rek lay jël ay garaatam te Cheikh al moo amee ndono gi kon dal ñi ngi wax taalibe yi ne leen gàmmu ngoog ni ko Cheikh Ibrahim résumé won xisasun tataxallaluha al amdah ala hamish al mawlid nak am march marge gamu gi dana am ay activités culturelles yu am ñi nga xamne ñoo ngank activités yooyu danañ len ko baxé buñ ci tollé xana rek nam daan démé la daan démé amna président commission scientifique amna président COMAF mi ngi fi

ci réew yu wuute lañ jugee ci làkk yu wuute lañ bokk ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñu jox la benn thème ngay jàngat benn bunt ci Mawlaaya Cheikh al Islam Haji Ibrahima loola bokk na ci li nga xam ne ci innovation yi am ren la incha allah ca Medina ca fa ñuy wax këru gan. yaakaar naa ne eh, fake fan yu new da ngeen dégg annoncer ak da ngeen gis poster ak li nga xam mo ci aju amna sax lu tambali ci réseaux sociaux yi waaye eh, li ci dess da ngeen ko jot inshallah ñi jangat dundu cheikh al islam Haji ibrahim nias te jangat dundam moy jangat dundu eh, cheikh Tidiane nak ndax produit cheikh Tidiane la jangat dundam moy jangat dundu Yunus bi sallallahu Alaihi Wasallam, nak ndax moone mbootam yonent bi moo royaat ci man kon daal mbokk yi ñu ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp ci weer yu tedd yi di leen ñaanal di ko sàkku ci yéen di wax ñépp itam nañu ñaanal alxalifa Seydi Ahmed Tijani Ibrahim ñas xam ngeen ne man de jot naa ko ci téléphone ba ma ko jotee maa ngi bégal mbokk yëpp mu ne ma oh, waxal taalibe yi ne leen maa ngi gis seen i ñaan loolu kon dañ koy bégalee taalibe yi ne leen sëriñ bi nee na mi ngi gis seen i ñaan baayam cheikh al islam nag moo doon wax ne sëriñ bu ñàkk sens mooy sëriñ boo xam ne ay taalibeem dañ koy ñaanal kon nañu li ñuy ci moom lañ yaakaar ñaan waaye ñun itam suñu devoir mooy ñu ñaanal ko mu yàgg fii te wér incha allah bu ko taalibe yëpp jooytoo euh, mawlaana subhanahu wa taala loolu dana daal di am incha allah mu jité ñi nam daan jité di ñi ñaanal ni ñu daan ñaanalé di ñi xol ba ti leem yi nga xamné suñu yaakaaru tay la ak ëlëk mbokk yi hani an lakum wa salaamun ala zaaka rasuli muhammadin salaamun ala taaha salaamun ala al-ghusam mbokk yi daal salaamun ala ibrahima kadalika najil muxsinin السلام عليكم ورحمه الله